Bienvenue sur Salam Vision. ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di jaamul delluwaatee santaar yàlla ci mbaaxam def lu ko neex te dara lu ci fekk yafalu ma yasha fi mulki nit ñi ñëpp ku ci def lu la neex te dëpp wala yoon yoon ca kaw waaye borom subhaanahu wa taala lu ko neex lay def nga tourné di ko di jënd ci sangam boobu suñu sang ñu toppee rasulullah rek waaye fa ñu am yuhibbukumullahu ñu am cofeelu yàlla bu ñu amee cofeelu yàlla am yaghfir lakum zunubakum ay borom yu bàkkaar lañu mën a tooñ waaye bu ñu toppee waaye jooju rasulullah mu sopp ñu te bu ñu soppee nag jéggal suñu bàkkaar wa tabarakallahu di ñaan yàlla rek suñu borom subhanahu wa taala weeru tëdd bii di cheikh ramadan lépp lu ci jaamu yàlla yàlla nangu di ñaanal suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ahmadou Tijani yàlla yàlla doon leeral doon doon doon bëggloo ñu ko waaye buum bi ñu ommat buum bi ñu ommat jëmale ñu ko Cheikh yàlla yàlla doon mu nekk suñu buum moom Cheikh Seydi Hadj Malick di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di nuyoo di jiital ci ñoom bi xam nga général de Tijani Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaan yàlla yàlla yàlla gën a guddal fanam yàlla yàlla gën a wattu ko gën a yàlla dëgëral ko yàlla yàlla gën a sàmm ko. noonu la ñuy nuyu xalifa général bi mooy Serigne Mountakha Mbacké yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla wattu ko yal na yàlla dëgëral ko yal na na yàlla téye ko boppam bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem xalifa yi ko suuf dem ba Thiénaba dem ba Medina Baye dem ba Léona dem ba dem ba Yoff fépp bàyyiwul fenn dem ba Ndiassane waaye ñu kuntu di ko ziyaara di ko ndokkeel ci yoonu tedd bi di sëtu rasulullahi di ko ñaanal yàlla taxaw ko yéen yàlla dëggal ko bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu dellusiwaat fii ak yéen seen émission bi al ilm wa taalim ngeen ànd ko ak Oustaz Ibrahima Niang ngeen koy defee fii ci Salam Vision ci chaîne YouTube bi nga xam ne moo nekk bi ngeen ànd ko ñun ba ba léegi tabarakallahu di émission xam ak xamle wa tabarakallahu di ñaan yàlla rek lépp lu ci wax yow doon leer sotti ko suñu kaw waaye lépp lu ci juum yàlla yàlla jéggal ñu ko dëpp ko def ko leer sotti ko suñu kaw bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ci fukki fanu koor bu njëkk bi di yërmande yeneen fukki yi di jéggal waaye ba léegi ci yërmande yàlla ngi dimbale nag moom ba léegi ñu koy tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla yàlla may ñu àggale ko alhamdulilahi rabbil alamin ñu fàttali rek bindu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni mandargay naafiq ñett la ayatal munaafiquuna salaasatun iza hadasa kadaba wa iza wa'ada xaafa wa iza umina xaana te naafiq yéeféer ci yéeféer ëpp muñ naafiq naafiq na bu ñu ko waxee mooy koo xam ni day def lii def lii dugg fi génn fi wax fi wax fële seen naa xam ne ni ñett yi bu nekkee ci waa ji xamal ne naa feq la te naa feq bu yow xamante yàlla nañ ci suuf safara laa def ko ñun yéeféer yi ñooy dafay di kaw inna munafiqina fi darakal asfali min annar yàlla ne naa feq ci suufu suufu safara laa def kon naa feq koo xam ne naa feq la dina wax laa ilaha illallah dana wax Muhammadu rasulullah dana wax sëñ Tuubaa dana wax Alaaji Maalik dana wax sëñ Faalu xam nga yéen bi sax moom la sëriñ Cheikh waxoon ni ku bon moom la gën a sew ñu ne lu tax mu ne ku bon xam nga ni kii laa bon waaye ki sew doo ko natt mënoo ko natt mooy naafeq la mooy naafeq moom yéefee bi gëmul dañu mën gëwum ki kii dañu mën gëwum mais kii gëm-gëmul ko moo gën a bon kii dañu gëwuma gëwuma li ngeen di woote gëwuma li ngeen di woote dëgg la moo tax ànduma ci yéen mais kii dem ne gëm naa li ngeen di woote. teewul lekkee bañ ak li ngi bëgg mu boole ñaar yëpp di ko def waaw xam nga loolu baaxul iza jaaka munaafiquun qaala nashhadu innaka la rasulullah wallaahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallaahu yashhadu inna al-munaafiqiina lakaazibuun ittaxazu aymaanahum junnatan fasaddu an sabilillah nga xam ne keroog bi aaya bi wàcc dañ daan def bu ñuy julli ci ñoom boo mësaa ñu julli Allah bu ñu daan julli amoon nit ci loxo nii ñëw taxaw ne rek mais bu ñu demee yëg seen yàlla yi dugal fii seen mbokk seen seen seen seen poxtaane du bu ñu dugalee seen poxtaane bu ñu demee ne ci ginnaaw Seydina Mohamed di ko seen am na seen i bant bu ñu waxee gëm na bu ne allahu akbar ba ne loxo yi bi loxo jógee ñoom ñëpp di seen yàlla yi wan ko seen yàlla jot nga xam ne kon wala yàlla inna munafiqina fi daraki asfali min annaar kon kii gëmul dee gëm-gëmul seen naa Muhammad ne nag naa feqi na timaana dara ida xam sa kasaba lu mu wax dëgg waaw lu mu wax dëgg alors que léegi Sénégal yi léegi politicien boo waxee ñu ne waxu politicien la waaw waxu politicien la waaw wala waxu diw la ah bu ci doon sa doom de waxu diw de loolu jullit bu ne war na ko moytu waaw ah, wala wax nitu Thiès wala wax nitu Dakar wala wax nitu wala wax nitu nitu nitu Kaolack yooyu nit jullit bu ne war na ko moytu waaw ah, te boo tàmmee fen day ba malaaka yi dañuy woote de presse ku mën a fen la waaw diw ku mën a fen la boo xam ne boo rombee ci mbedd yi ñu lay ñu lay jox ak mën a fen ak mën a bu la séeréer yi ñu ne noppi leen waaw noppi leen bravo ñu noppi loo bu dëgg ah, fen rek fen rek dañu wax ni fen mooy loo xam ne nga fekk sàmm mu yor portable ci biir néeg mu wóor na dëgg la nga génne ca mbedd ma wax ko wax waaw ah. mais nag ñun boole fen sos rambaaj jaxase jëw boole yoo ni dootoo di kii la doo xam ndox bu fen waaw ah. feneen nit di ko di ko lijjanti di ko luñut di wax ci moom te sa yoon newul ci moom mu mel leen diggante ak suñu borom la waaw ah. buy naan sàngara diggante ak suñu borom la buy njaar diggante ak suñu borom la waaw ah. buy tux yàmba diggante ak suñu borom la waaw ñaanal ko yàlla yàlla jëlee ko ci te nga ñaan yàlla yàlla bañ na cee dugal waaw yàlla waxoon Seydina Muhammad innaka laa tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha rasulullah dafa doon ku la neex mooy jub sa baay Abu Lahab du dem sawar sa baay Abu Jahl du dem sawar waaw kon man yàlla may xool ku ma neex ma teg ci yoon siraatal mustaqiim maanaam baay Abdullah Hadar naan jàmbar amul yafus amul ku yàlla dimbale rek moo fi nekk Isa Alisa Kasaba sa waxtaan yëpp ay fànn soo xëy na waxu politicien nga dem kooku maam jëm wax ñu wax mu ne moom maa waxal waxee yooyu lan la lan la lan la seen naa nga xamee ne loolu bokk na ci màndargeen naa fekk wa isa awada xaafa bu la joxee rendez-vous nga posé rendez-vous bi seen naa nga xamee ne naa fekk mooy posé rendez-vous bu ñu waxee ñu ne rendez-vous Sénégal xam nga yu yu bon rek la ñuy askanale Sénégalais ne ñu koy tax seen bopp ñu def Twitter soo ñu dem Sénégal de 11h ñëw 13h 13h ñëw 16h il faut être ponctuel dans ta propose mais c'est dispose di nga programme yàlla dindi sa programme waaye nag fekk ni yàlla moo dindi sa programme waaye bu mu nekk yow tey nga programme naa yow 11h teg sa ataaya jàkkaarloo tere di xamatay naan naa ba 15 heures ma doog a dem loolu yàlla déprogramme wala yàlla déprogramme sa déprogramme waaye sa rendez-vous dem dalay may waxoon ne waxtaan wala xayir fa kayfa ixtiyaaruna inna al-mughibata umuri na bu ñu tànnaloo suñu bopp nañ bàyyi yàlla ndax ko xamul fooy mujjee ëllëg noo tànnal sa bopp waaye teewul ne jullit wala mën a respecté rendez-vous wa ida utmina xaana koo gën a wóolu wor la Sénégal wor comme comme ndoxu naan comme ndoxu naan wor wor dana déranger tout gars yi wóolu nit waxu sa secret wóolu nit am ci moom yaakaar wóolu nit wax la waxul kenn nga génn ñu koy nekk ñu ñu koy waxtaane ci mbedd waaw ah. wóolu nit ne waxu sa soxla mu ne walaay dara nga génn mu woo benn xaritam diw moo fi ñëwoon léegi léegi dama ñaan mille francs wala diw moo fi ñëwoon léegi léegi dama def cinquante mille xoolal yooyu ñàkk sutura te yàlla na ne ku dul suturaal góor bu yomal xiyamate du mën a suturaal waaw waaw seen dama xam ne ku mun na ci yow ñett yëpp ay mandarga naafeq la waaw nit bu la bul ko war waaw koo koo koo fa séenuwul dama moom ci kanam bul àndal moom Serigne Ba ne la ku war ku war nit rek ba dëwal mu dellu si te ji te dara fekku la ci da la koo ji mais woo waaw Seydina Mohamed mës na toog ak saxaaba yi Ababacar Umar Ousmane Seydina Ali di waxtaan ak ñoom jéggi saa di Ababacar mu ne ko la ne ko dëwal dox trois pas Ababacar dox trois pas seen ay tam ñu lekk lekk lekk lekk lekk bi ñu lekk ba suuf ñoom tan yëpp naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah ba du wax tan lekk mbedd ba suuf taxaw fi ñu tudd yàlla jiite Seydina Muhammad di mënu nekk mu ñëw ci Rasulullah ak saxaaba yi Moussa Wade waaw loo gis mu ne ko ma daal di ma gis Moussa Wade jaaxal naa ci mu ne ko loo gis. ñu dama seen ay tag yu woon benn mbét lekk ba doyal di tudd yàlla mu ne ko mun a jaaxal mu ne ko xam nga loolu mooy la mu ne ko déedéet mu ne ko loolu mujj jamono ma ci samay xel dañuy dajale ko ci jàkka yi dajale ko ci daayira yi bu ñu génnee ñoo ngi jëwante sàmm loolu am na wala ko ah dañuy dajale ci jàkka yi julli ba pare tudd fa yàlla bu ñu génnee ñoo ngi jëwante Fatou ngay wax ci Ibra Ibra ngay wax ci Kole kon la ngay wax ci Mamour Mamour loo ngay wax ca Samba Samba ngay wax ca Fall Fall loo ngay wax ca Xaalid kent sidna alquran dafa ni inna baada zanni ismun wala tajassasu wala yaqtab baadakum li baada atuhibbu ahadakum an yaqtula lahma axiihi maytan waaw képp kuy wax ci moom mel ni yaa ko rey ci ginnaawam mel ni yaa ko rey fees ko daget di waaw a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan kon fa karihtumuuhu maytu leen loolu waaw maytu leen loolu waaw wala yaxtab ba'dukum li ba'din waaw maytu di wax ci ñenn ñi di jëmale ci ñenn ñi a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan kon fa karihtumuuhu fa karihtumuuhu bàyyi maytu leen loolu mu ne ko loolu mujj jamono la bu ñu nekkee ci jàkk yi waxtaan ba génn bu ñu noppee ñoo ngay jëwante mu ne seen naa Ousmane di ko dox deux pas seen naa Ousmane dox deux pas seen benn nag bu suur di xam ci yaram mais fu mu xam foofu day day day day day wéraat Ousmane ñëw Moussa Ba ne ko Ousmane loo gis nu ko nu ko ah, waaw kan gis nga nu ko déedéet ni ko loo gis mu ne dama seen benn nag di xam ci yaramam di lekk waaye fu mu xam day wéral mu ne ko Ousmane bu la jaaxal mu ne ko xam nga mooy loolu mu ne ko déedéet mu ne ko mujj jamono la koo gën a wóolu moo lay wor mu ne Omar jugal Omar jug seen ñetti pax ñaari pax ne ci côté benn pax ne ci digg bi ñaari pax yi ci côté bi di joxante te bi ci digg bi mënul kon doy na war a na ngeen koy dégg pax nekk nii pax nekk nii pax nekk nii ñaari pax yi ñoo ngi joxante mais pax bi mënul am mu ne mais pax bi feesu su feesoon sax mën a romb sax bi mën a jël mais bi ci digg bi feesu ci mënul am te ñaari yëpp ñu fees xamal ñoom Seydina Mohamed di ko war loo gis débat ba gis nga gis bu ko déedéet lu Ousmane gis nga gis bu ko déedéet lu ko doon gis léegi ba si ñetti pax ñaari ci pax yi ñoo ngi joxante waaye bu ci digg bi mënul am. mu ne ko Omar bu la jaaxal xam nga loolu mooy la mu ne ko déedéet mu ne ko mujj jamono la fu ñu war a def ñu fa def fu ñu war a def fu ñu war a def ak la ñuy def du ñu sonn seen bopp waaye dañuy sonn ci bokk jàmbur nga am fi kilo kilo kilo kilo kilo kilo contre ba kenn diir ba kenn mais nga am fi kilo kilo kilo ceeb wala kilo suukar wala kilo tàndam nga dëkk sa mbokku dëkkandoo amul lu mu lekk nga jël tonne ceeb wala tonne ciment wala tonne suuf départ ba Tiwaawan wala Touba wala Ndiassane yóbbu ko loolu yàlla wala du yàlla. ah te Seydina wax ne du jullit du jullit du jullit ba mu ñetti yoon ñu ne kat mu ne kenn na ma lekk ba suuf bàyyi bàyyi dëkk doom lekkul ku mën a lekk ba suuf te xaatul boobu dëkk doom lekk na wala lekkul. jibril nee na Seydina Muhammad nee na jibril musul dëgg mu ko déggoo ci man di ma fonkuloo ak dëkkandoo ba ma yaakaar ni sax dëkkandoo lay doon waxul sëriñ de dëkkandoo la wax ba xam ndax dëkkandoo dina doon mu ne fi ñu war def dañ fa def fi ñu war def la ñuy def loolu moo am léegi sax ah day xool ku soxla cent mille doo ko may nga xool ko xam ak ku yor ay milliards nga koy may oto buy jar ay cinq cent millions ay cinq cent millions ah bi may di xoolal fii dëkk bi nu méttee mayoo mayoo ñun ñi soxla nii nga kii ku ci gis lu di ko may ay 3 millions wala ay ay ay 5 millions te ñooñu nga tiim wala nga tiim ministère yi nga xam ne yéen ñëpp seen compte yi si xam ne la di ngeen di may ay 1 million 5 millions loolu foo ko teg fi ñu war def dañ fa def fi ñu war a def la ñuy def mu nekk si juróomi yëpp ne ay ne seen naari jub ak seen naari jub dox trois fois. seen gën a jong bu rafet jong bi doxam dafa teey rafet seen ay jong rek topp jong mu dox di ko dox mu dab ko di ko dax di ko dax ba sol mënu dab jong bi mu koy dax ba sol mënu dab jong mu ne kii su may dox ba sol mënu ko dab xaaral ma jël fas mu jël fas naaru góoram di dàq fas bi di ko dàq ba sol mënu dab jong jong bi mu dàq dàq dàq ba sol mënu ko jot mu ne kii damay sol waaye dama ko jot xaaral ma tourné bi mu tourné mu ñëw ci Rasulullah Seydina Mouhamed ne ko xaaral ñu ko dambaay bu ñu ko doon gis day waaw gis nga gis bu ñu ko déedéet lu Ousmane gis nga gis bu ñu ko lu Omar gis nga gis bu ñu ko déedéet lu ko doon gis mbir damaa seen ma gis ko ne topp naa ci ginnaawam daw naa ba sonn ma ko Rasulullah xet naa samay tànk jël naa fas naa fas ba sonn ma ko jot ba tundoor Seydina Mouhamed ne ko kooku mooy àdduna boo di ko daw ba sonn fii waxee bàyyi mooy àdduna da ngay daw a daw a daw a daw ba dee waaye fii ko koy bàyyi xool yooyu jàng na kon tabaarakallaahu dañu teel la woon ci waxtu mat na ñoo ngi nuyuwaat ñëpp di ziare ñëpp di baal wax ñëpp di ñaanal ñëpp jàpp yàlla yàlla defal jàpp di ziare sama papa yooyu si yoonu koor bi di sama papa moom kuy di ko ñaar yàlla yàlla doon dëgëral ko yàlla yàlla doon sàmm ko yàlla yàlla doon doxal ko gis nañ ñaani gis nañ ñaani gis nañ ñaani bu baax a baax a baax a baax a baax papa moom kuy ñoo ngi lay ñaan bu baax a baax wax yàlla yàlla gën ko yal na yàlla gën a sàmm la yal na yàlla gën a wattu la bi jaay baax di nuyu la sa njaboot yëpp tabarakallah yal na yàlla taxaw leen du ma fàttali sama sëriñ sëriñ Gaali Buso nekk ba tabarakallah jaare waaye di sët ci maam Thierno Buso waaye di doom ci maam Thierno Buso waaye di sët ci maam Jaara Buso tabarakallah bi doom ci maam Adama Mbay noonu laay nuyu ko ma suuna sama jabaar bopp du ma fàttali ndey naanu sama jabaar bopp du ma fàttali nag sama soxna su baax soo su nekk ba dara sama jëg di ko ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam yéen yàlla gën a sàmm ci weeru tedd bi di ko ñaanal yàlla yàlla gën a taxawu ko muy sama yaay jàpp ji nag xam ne mooy sama doole mooy sama kàllaay man sama yaay mooy sama doole mooy sama kàllaay yàlla yàlla gën a guddal sa fan lépp nga li ñu lisee ci yow yàlla yàlla ko ñu mottali ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ma fàtte si Abdou Karim Mbacke ma doon ma kàlla xalaat du ma fàtte si Cheikh Oumy Mbacke waaye du ma fàtte Khalifa Ababacar Sall di doom ci maam waxee aussi waaye di si Serigne Babacar Sy atabaatabaa di nuyu sëñ Moustapha Sy bu responsable Moustachid bu Moustachid waaye sëñ Moustapha responsable Moustapha fii Asal Abel wa Ajal di ma fàtte sama sëriñ Ousmane Sy Dabakh di ñaanal mbooleem ñoo xam ne ànd ñu ci émission bi yàlla yàlla taxaw leen yàlla yàlla dëgëral leen yàlla yàlla sàmm leen jërëjëf Tidiane du ma leen fàtte Moustapha sopp Dabakh mujahidina fi sabilillahi Mouhamadou Mansour nuyu naa la bu baax a baax nuyu sama sëriñ nag sëriñ Babacar Dia di ko ziar di ko ñaan yàlla yàlla dolli ko taxawu ko muy soxna soo soxna soo yàlla yàlla taxawu leen di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh